ginnaaw bu ñu sante yàlla dañuy julli ci Seydina Limaam alay salaam di sant suñuy waajur bu baax a baax a baax a baax waaw sant yàlla bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ko loolu déjà dafa doy sant ndax woote bi moom yàlla def na ne ku dul laañ sax da ngaa war a wisi dañ naan jullit rek danga war a wisi ndax nag bu Seydina Limaamu wootee ku ne danga war a ñëw ñu ngi koy waajal ak jàmm ak salaam waajal kër yi waajal bernde yi waajal dem nag ziar parce que dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy appel waajal euh, suñu yëre yu baax yi yëre yu weex yi comme daf rek comme Seydina Limaamu alayhi salaam moom daanaka yombalal nañu lépp ah, li mu laaj bariwul perkaal rek nga daal di dagg sol solu weex dem ziar jëmmal bis bi julli def say wér Euh, dafa bokk ci li nga xamante ne nii euh, moo di appel donc ñu jàpp rek ne ñu ngi koy waajal bu baax a baax ca yoon ba ñu war a jaar. waaw sama histoire ak euh, Baye dafa nekk lu lu lu symbolique nekk lu naturel loo xamante ne nii ci laa juddu. daanaka li may wax toujours naan euh, jullit bu nekk da nga war a am histoire ak ki nga xamante ne di moo di Seydina Limaam alayhi salaam ndax euh, moom moo taxaw ne moom a démb moom a tey donc euh, suñu histoire mooy doon jullit rek topp ci ay naka topp ci ay digleem di bàyyi ay tereem jubal jubtee jubal ah di di ko sant nag bu baax di ko ñaanal yàlla bu wér a wér a yàlla nañu ko yàlla fayal mm-hmm. kenn du moom waaw xëñ na way dina ma jafe <laughs> livre aussi dina ma jafe mais yaakaar naa bis yàlla may ma xéewal bu baax a baax a baax mën tabax ab jàkk bu baax dippee ko ko ndax nag euh, mérito na lu lu lu ëpp loolu moom sang boobu yiw gi yar gi daraja bi leen yàlla jox macha allah ñu nekk ay nit yu maandu que même boo duggee ci milieu sax li ñuy njëkk remarqué ci yow daan ne eh, kii kat taalibe Seydina Limaamu la ki du def lii ki du def nangam. je me rappelle dem naa ci benn casting war a jouer benn pièce théâtrale ñoom ñu toog si biir bi ma egsee rek peut-être ak sama jëmm ñu am beneen rôle bu ñu mbébét ci man. bi ñu toogee ñoom ñu waxtaan seen biir am ko fa toogoon xam naa ne dina ma dégg incha allah li mu njëkk wax mu ne yii kii la boo ko joxee lii du ko def parce que dafa gëm bàyyi laay donc loolu rek déjà dafa nekk lu lu spécial ci ñun dafa nekk loo xam ne boo nee laayeen laa rek yu bari da nga koy jommale sa bopp yu bari doo ci ñemee dugg yu bari aussi doo ko ñemee def donc li ma wax sànq rek euh, jub tey jubal rek moo ñu war te loolu kase moo ñu jig xuntu ba xam nga xuntu nag euh, dama fay gëj souvent yàlla dogal euh, bi mu fa njëkkee dem parce que bi may dem Yoff Cambérène ak yooyu dama dama ko dama ko màggaale parce que daanaka su ma yeboo ne ñun dañoo juddu rek commencé di dem ziar di dem jàmmalaay ak yooyu mais xuntu ba dama jëlaloon dem ba nekk mag jël sama propre initiative ne tey damay dem ziar xuntu ba yàlla dogal ma dem bi ma eggee ñu won ma fii Seydina Limam alayhi salaam tegoon tànkam fi mu daan jullee ma war a dugg nag ci biir xunt ba war a wàcc. xam nga ci suuf. la la la marqué. Mhm. mais bi ma duggee ci biir xunt bi war a war a wàcc échelle bi. Mhm. dama teg sama ñaari tànk ci échelle bi rek rek yuuxu. keroog dama jooy ba ñu tëye ma ki ci kaw di ma dugal mu ngi naan ki ci suuf tëye ko mu ngi wàcc tëye ko. parce que boobu mënatuma xaw ma fan laa nekk. ndax yëg-yëg bu foor boo xam ne mënuma ko expliquer ba pare sedd guy. Mm-hmm. ma dugg ñu dalal ma mu am fu ñuy këpp suñu kanam. Mm-hmm. ñu ni ma tegal fii sa kanam bi ma tegee sama kanam duma ma mënuma expliquer exactement la ma fa sentir ci odeur. Mm-hmm. mënuma expliquer la ma fa gis mënuma ko wax. waaye li may wax rek toujours euh, que ne léeg-léeg nga dem bërëb yoo xam ne dalay wóor ni fii jaamukaayu yàlla la mm-hmm. dalay wóor ne fii am na lu fi ne mm-hmm. munoo ko naataable mm-hmm. laayan gi ma doon gëm naa ne yàgg naa gëmit ne Seydina Limaam mooy rasulilaahi waaye it keroog ba ma demee da koo gën a firnde mu am lu bari lu ma yëg ci sama yaram ma génn ñibbi suñu kër bi ma ñibbee suñu kër sama benn xarit may àndal ñëw fa di ma seet daf ma gis rek mu reculer ma ne ko yow lan la looy looy reculer mu ne ma tey ma la. Mm-hmm. ma ne ko lu tax mu ne ma rek dafa am benn leer booy dégager. Mm-hmm. bu nekk ci yow boo xam ne xaw ma lan la tey ñemewuma la. wallaahi euh, loolu bokk na ci li ma marqué trop trop njëkkee dem xuntu ba ziar. waaw boobu nag yàlla dogal na ni maîtriser naa ko. buñ koy ñaan moom sama baat bi xalaat daanaka liñ naan euh, sama benn frère nee na ma yow moom bu aw bi jotee kenn du la ci ëpp baat sa baat ba ngay ma aju ca kaw parce que nag dafa am loo xam ne boo ko gëmee aussi gëstu ko dafay baax. Mm-hmm. liñ naan ñaan boo gis am na commencement waaye it ñaan boo gis dafa am luñ koy tëjee. Mm-hmm. te ñun waa bay Bayti noonu la ñuy tëjee suñu ñaan donc képp kuy laayeen forcément danga koy maîtriser. ci sant yàlla bu baax. <laughs> ah bu ma si fi waay. waaw ma ci ko ba appel ak jàmm incha allah. lépp nga ko baax def naa ko kay. kon dina ma ko man nag euh, xam nga zikkar nag dama ciy am choix parce que léeg-léeg damay bëgg zikkar yoo xam ne daf may dellu si suñu borom ndax nag. Euh, parole yi d'accord neex na harmonie bi neex na mais léeg-léeg dangay ngay déglu zikar dellu ci yàlla carrément te doo xam sax lan moo la fa yóbbu may faral di déglu lu bari nag euh, sama sang boobu di Mambay Laay donc ci zikaru yaa rasulilah te nga yokk te dolli sunu soppe bi gën sunu ndaw li macha yàlla tawal te nga julli musalal te nga yokkate dolli sunu soppe bi gën sunu ndaw yàlla lu toll ni sa xam-xam yaa rabbana yàlla lu toll ni sa am-am jullil ci mi la mi la gën a xam ரூபாய்